Assane Mesre Ousmane Sonko conseil bi leeral na li tax ñu euh, euh, daal di koy euh, dindi ci jongante bi nee nañu ay affaire fiche dooy affaire ay caisse de dépôt yooyu ndax loola maîtrise du du domaine li nga xam daal moo tax mooy dafa sukkandiku ci condamnation six mois bi ñu ko condamné ci dossier Mame mbay Niang mhm. nga baal ma nag am na ko may laaj soaay bi tax xalima amul démb ci dimanche bi gan gi invité woon nañ ba kale mais après la ñu woon yi dafa xaw a siddiw mhm. yal bu baax moo tax ñëwul waaw. Mhm. Mm-hmm. waaw euh, loolu nag man bi ma ko déggee laa ni man ñi nga xamante ni ñooy jàngat wala ñi nga xam ne ñoo droit wala ñuy wax si wàllum yoon ñoom ñoo jàngut wala ñoom ñoo xamul droit wala ñi nga xamante ni ñoo sukkandiku ci àtte bi def li ñuy def dañoo def li leen neex am na lu ci am. ndax borom xam-xam yi ñu dégg yëpp dañ ni. 6 mhm. mois wala tur ñaata weer nañ ko tëjoon la wax. six mois six mois ferme maam six mois kese mënuñu ko seedaan ci loolu il faut que mu doon six mois un jour six mois deux jours six mois loolu lépp la ñëpp wax. ñëpp maas si lenn ci borom xam-xam waaw ñu si ëpp man dégguma kenn ku ni six mois képp wala benn côté bi nga féete léegi nag kon bu ñu ñëwee atte ko ci loolu si six mois yi ne ko six mois yee tax doo mën a bokk si élection yi kon am na ñu si nekk si mboy gi ñu ne ci mboy waaw koo jàpp ne moo ne ci mboy man kay damaa yaakaar ne xanaa ñiy jàngat ñoom ñoo nekk ci mboy gi chroniqueur bi monsieur parti de chroniqueur man yaakaar naa ñoo nekk si mboy gi ndax xanaa yoon ñemewuñoo xool loo xamante ni du yoon demewut noonu te xam ne lii li si des ay fan la nga si wanteer sa bopp di def loo xam ne waroo koo def te tegoo ko si njàng tegoo ko si lu leer. kon man jàpp naa ne ñi doon wax ñoo xamutoon li ñuy wax. benn beneen bi it lii li ma waxoon sànq si maam Mbaye naa ne lii moom pour mu teggeeku ko wala mu indi loo xamante ni dana tax mu tegg ko dina jafe tey jii bu fekkoon. yóbbu mbir mi lii mu def nii moom Mame Mbaye lii mu waral lii waral lii nga xam ne moom moo waral mu am yaakaar naa ni bu démb doon taye du ko def hmm. waaw foo ko teg ndax li si ëpp liñ jàpp ni moo taxoon ñu di ko def mooy Ousmane Sonko du bokk ci élection yi ku xeetoog Ousmane Sonko du bokk ci élection yi waaw te président Macky Sall mooy mën a am troisième mandat wala su munta am it dana teg ki nga xamante ni moo leen neex ñu continuer di gouverner di noos ba sa kanam a kanam. Mhm. mais bu leen leeroon bu ko leeroon mbir mi nii lay teel a jeexee te fii lay mujj. Mhm. du si dugg. waaye nag ah, wax dëgg yàlla ak lu mu wiktiimu wiktiimu ak lu mu deltu ginnaaw deltu ginnaaw ak lu mu dal ci kaw ña dal ci kaw ña lii moom doonul loo xamante ni man Sénégal bu ko baal. Mhm. tam conserné la jàpp naa doo nit. doo nit waaw am na ñuy bind ci commentaire ni euh, sa waa ji décce Mm. xaw ma ndax lu am la ni amoon na condamnation six mois xaw ma nag ci ban dossier la mu ni xanaa kon Sénégal daa am ñaari yoon. Mm-hmm. Déthié fan la amee woon six mois. non Déthié ñoom Ahmed Aïdara dañ doon doxu ñaxtu leen ñu ñu. dañ ah, ah, dañ leen a dañ leen dugal leen kii leen. doxu ñaxtu te ñooñu li leen arrêté woon yaakaar naa ñi xeex seeni droit lañ. d'accord ñu ñu arrêté leen ci loolu waaye daal en lii moom Hmm? bu ñëwee dañ ne six mois daal de six mois bul fi nekk naan bii lii la ak beelee la six mois six mois la point. non est-ce que du droit de. waaw maîtriser wul dara. <laughs> non non ñii maa leen gën a maîtriser loi ndax ñu doon wax si loi bi yëpp la ñu waxoon demeewul noonu. <laughs> kon maa leen maa gën a maîtriser droit. alaaji conseil bi de moom mi ngi raxas ay loxoom daal ba lii la teg ci loxol sénégalais yi. gaa du ko tax a set. Ah, mën ngaa raxas nag waaye li nga koy raxasee mooy li nga wax noonu rek lenn la. ci li nga xamante ni bi bokk na ci li tax booy raxasit ngir mu set dana xaw a jafe lool mhm. mais intention bi nga li nga xamante ni bi tey xam nga son yi bu alaaji bon gis nga avocat Ousmane Sonko yi jar nañu félicité mhm. bu baax a baax ci taxawaay bi nga xam ni moom lañ taxaw mhm. ba yëf yi ni mu demee nii man damaa gëm ni li ñu leen gëmloo woon mooy li nit ñi doon wax Basirou du bokk Ousmane Sonko du bokk waaw loolu hmm. moo nekkoon but bi waaw ci leen dugal xëy wax na ko ay sëriñ yu bari wax non wax nañ leen ko sax ñoom ñëpp du question ay ah, même candidat dañ du question ay listixaar du dara si ni non waaw waaw mais ay nit ay xibaar la yoo xam ne jot nañ ko procédure bi niñ koy doxalee nii lay demee nii lay demee bokk ci parti bi du bokk hmm. waaw. yaa ngi dégg. si mais avocat yi ñooy teg ay jéego yu am solo yoo xam ni moo tax loolu kenn mënatu koo ñeme. Hmm. éliminer leen ñoom ñaar parce que dañu prévoir man dama gis ni dañu prévoir woon éliminer kenn ki éliminer Sonko dernier moment ñu éliminer Bassirou. waaw mais bu boobaa nit ñi dañoo war a pare ci mbirum Sonko. Hmm. mais avocat yi ñoo suivre mbir yi ba mbir yi yegg ba dernier kii. Mm-hmm. donc nag mënuñoo éliminer ndoo ñaar yëpp. léegi nag soit ñi bëgg loolu leen rek lañ ko mën a wax ne ko tànnal sa bu la neex daal waaye di moom kenn mënu munu munu ñoo def ñaar yëpp. mënta nekk mm-hmm. parce que bu fekkoonte ni tey dossier Sonko nekkutoon ci cappaandaw gi maanaam kale woon nañ ko ba mënatu la yegg si. Mm-hmm. yaa ngi dégg. kon Basiru dañ koy éliminer. ñi waxoon loolu yëpp foofu lañ ko tegoon nañ ko fu leer te préparé woon nañ ko. mais fu ñu dem rek dossier Sonko nga fa. Mhm. saa ñu gisee Basiru gis Sonko. te mënuñoo boole ñaar yëpp taxañ bu ñu gisee Basiru gis Sonko. Mhm. léegi nag dañu obligé daa dee ne moom nañ dindi Sonko. Mhm. mais liñ la jox nii du argument bu taxaw ko parce que li la koy wan rek ñu ngi ñëw di la wax cas de ci fa waaw donc euh, te condamnation condamnation la. bu fekkente ni da ne woon six mois kay daf Sonko dafa am un six mois un jour. ñu mën a wax ne waaw kon looloo tax mais comme que ñoom ñëpp six mois la. te ba noppi kee jàll nag kon kii amul fenn foo xamante ni fi wala te defe naa ne sax abukaay ba léegi ñoom pareeguñ de. <laughs> pareegu ñoom. Ah, ah pareeguñ jege jege ci kii de c'est que. Mm-hmm. loolu loolu lu am solo la sooy mm-hmm. loolu mbir la moo xamante ne bi mm. euh, mbir mu baax la. Mm. waaw parce que bu fekkoon ne teel nañu bàyyi rek day indi li nga xamante ne bi mooy jafe-jafe moo tax pareen saa yi mm. ñu lay wax ne la fekk yëf yi jeexut bul décourager Mhm. nekkal ci li nga xamante ni bii moom nga war a ne. Mhm. loolu nag wane nañ ko nekk nañ ci li nga xam ni moom lañ war a ne ba tey ñu yegg si ci cappaandaw bi. Mhm. seen candidat jàll na. d'accord waaw parce que moo la Assane wax ne la rëccu dina am. parce que am na ñoo xam ni promettre woon nañ ne leen kenn du bokk. waaw. waaw bu ko defee risque du am. man dooni risque am man kay am na ku ma ci woo sax ba boole woon ci candidat si Moustapha Sy bi daan ni. xam nañ lépp dafa jege Sonko. moom it du jàll. Euh, risque mm-hmm. risque mm-hmm. toll nii léegi. bu sëñ bi fi toll nii tey. Mm-hmm. ñi jël dogal yi yëpp. risque am na parce que tey jii fi mu toll nii. nan la yëf yi di doxee. wax nga dëgg de. léegi pour leeral kii bi moo Modou merci beaucoup ci gëstu na yëf yi condamnation yi nee na bu defi kii bi. dëcc bi ah. nekkul woon définitif. nekkutoon définitif waaw. mais bii tamit nekkut kii de. parce que bii gars dañuy defe naa am na kii fu ñu ko war a song de. Ah, bi. kii bu mambay bi jeex na. waaw na. la kat bii lañ ñu wax. non moom jeexoon na. na lu ñu wax dafa mais naa jeex na. jeex na tàkk non jeex na parce que la kat bii ci la loo ah ngeen xoolaat ba xam. ñu xoolaat. Hmm. waa c'est bien bu ñu fi jógee kon est-ce que jeex na aywa gars xam nga justice moom bëri na ay wëlbati wëlbatiku. d'accord nga daan ko mu wëlbati la. nga hmm. wëlbati ko waat ko wëlbati ndax wëlbati yi daa jeex dañoo sas ca miir ba. <laughs> après bu ñu génnee kii ba ah, bu ñu sësut ca miir ba moom wëlbatiku mën naa amaat. Hmm. après xoolaat.